bëgg fàttali nit ñi rek ne euh, Sénégal bi muy àgg si ci multipartisme dafa nekk loo xam ne ci xeex bu yàgg boo xam ne ci lañ ko defee te xeex boobu moom moo indi en 1974 ñu ñu mettre en place le multipartisme ay euh, en 1981 bi président Abdou Diouf euh, ñëwee ci lañ ko yaatal ba xam ne tey moom moo jur li nga xam ne moom mooy li ñu li ñu xam ni tey mais ci jamono jooju bañ koy def ñoom it amoon nañu. bàyyi woon nañ xel ki ne dinañ ci dem ba dina jéggi dayo te jéggi dayo boobu loolu moo taxoon mu am ay euh, yenn mesures yoo xam ne mettre nañ ko en place pour permetre à ce que euh, parti politique yi ñu mën leen suivre bu baax loolu bokk na ci dépôt des comptes annuels mun a xam xaalis bi nga xam ne moom la ñu utiliser fan lay jaar ak yu ni mel je pense que tey bu ñu mettroon en application loolu topp ko dana gën a yomb ci ci ci topp parti politique yi xam naata la ak yu ni mel ak képp koo xam ne respecté woo ko tamit ñu mën a retirer sa sa sa donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne je pense que euh, demoon plutôt dans une application rigoureuse de de loolu dafa noonu gën a baax que tout de suite ngay doog ak si di wax lu jëm ci wàllu modification de la constitution wala wala yu ni mel.